léegi daw delluwaat saabu rek daal léegi daw saa bu rëg rek daane la ñu daw ña ngay dawaat ña ngay dawaat Seydou ña ngay dawaat saa bu rëg rek daane la ñu daw ndeysaan ña ngay tuut ca kaw ña ngay daw delluwaat Seydou Seydou xale yaa ngay daw delluwaat xale yaa ngay tuut ca kaw saa bu rëg rek daane la tuut bi rek ñu daw delluwaat cey làmb dégg sol na mbaxane ba sol na mbaxane ma cey làmb tey Reug Reug ngay def moo ngi def ay débat débam si ca si saaku yi lu muy suul si saaku yi lan la nday saal moo ngay suul de ay ñiy jaabante ne mooy bombardier nekkoon na fi roi des arènes. ñaari yoon ñaari yoon. rëg-rëg na xam ki muy bëreel mooy kan. ndax adversaire bi muy bëre ak ci lim juge bu mu fi mujjee diggante mag saa kees bu mu fi mujj dafa ñàkk. tey mu am bombardier te ku ne xam na ne bombardier mi dafa diis. bombardier bi mu fi mujj moom it daa ñàkk digganteem ak Tafatine. dama moog digganteem ak Tafatine. kon arbitre kon lamb ji ñoom ñaar tey du yomb. mais lu ci lamb ji fàllu. Reug Reug nu mu war a bëree combat bi mooy mu teey déglu Bombardier jox ko lim moom. Uh-huh. ndax bomb ndaanaan la te bërekat la faa. bërekat la. Bombardier tamit. damay ragal bu yëkkatee loxoom na day xeex. ah la xamal leen la Diop. xale bu ne ci yoon dañ koy jàppale. dañ ko jàppale. waaye du nuyu matu. du kenn du moom. waaye tamit du nuyu pël bu rafet. ay jigéen yu jàmbaare lañ. ah yàlla yàlla yu mën góor ne ndeysaan. ma du dundul denn dundul làmb ndeysaan loolu rek lay pël bu rafet tamit noonu pël bu rafet moom eh, naa la xamale moom DG la de waaye ba tey bàyyi yi moom pël DG la de du ko bàyyi ak ñoom parce que moo leen mën daanaan la moo leen mën du ñoom te duñ moom ku koy mën a ku koy moo leen mën moo leen mën ci biir moo leen mën ci biti ma jaaxal ci pël balaa nga koo xam nga fekk ko këram bu ndokatee nga ne moom a mën balaa nga moom day day jàmbalaa rek ni lu arbitre baa ngi leen di ba xam nii ñu parce que fii làmb ji dafa war a leer kenn warul tapale kenn warul nii ñaar ñoom ñaar ñoo bokk po fi ñu taxaw. dañ koy piil dañ koy piil. kii tet la kii fiis. fiis tet fiis ba Moustapha Gueye ba booy defee loolu ba léegi dañ koy piil. waaye dañuy piil piil mooy yoon. Bombardier mim na piil. piil na ko Yékini. kan moo gagné. gagné na ko Reug Reug gagné na ko. mbaa du ko gagné nii la defoon contre Yékini. mbaa Reug Reug mënu koo gagné ci ci. Ah, piil daal piil la rek. waaye fête lañ nekk. Ah. moo tax xoolee Jamaïque pétale yi day tàkk farfos. pétale yi day la fête. la fête. fête de Noël la. fête de Noël la. oh oh. oh. yàlla ko tey bu bëree bëri. fête baa ngi sunu mbokki njaago yee ko moom. Oh, oh. ñu leen di ñaanal. fête de Noël la dëkk baa ngay toj. bum jëlal ma loolu yirim. 24 décembre. oh. yàgg nañoo taal pétale. nañu ko def. waaye Fallou ñun pétalu kii lañ xamoon too too. too. oh almet def loolay bettax. bettax betaalu bettax. jël doo bi def ñu béré almet. oh. windeel ko windeel ko bi yaa fàttali lu garaaw. dem miir dem ba ci parenteeru jàmbur ñu. doo mu ne bëm. nga yaakaar ne yaa rey gaynde. oh betaalu bettax. waaye dërëm amoon na dërëm. amoon na. da ngay teg jël rek dóor mu ne taj. la Diop di la baalu àq. ndeysaan di la baalu àq la bu baax a baax. yow sama xarit nga sama mag. di la ñaanal sunu borom defal ñu jàmm. kenn du yow. dëkk baa ngay toj de pétale yaa ngay yuuxu. ma ngay toj de. déggal président Mansour Ba. Oh, oh. cey Mansour. kenn du moom nit ku yàlla baaxa c'est que Mansour nitu social la. wallaay nitu social la. sa waay lan. kooku suma xarit la. nit la daf maa ubbil ay buntam. ndeysaan. la bëgg la. arbitre bi arbitre yi la. ndaanaan la. mooy dina arbitre yi waaye xoolal ma Malick. xoolal soo jàpp na la Malick ndeysaan. waaye Gora Baye Masseye toogatul taxawatul. Gora Baye Masseye toogul taxawatul. toogul taxawatul Gora Baye Masseye mbokkam day Siteu la nag. rëg rëgay bëre. rëg rëgay bëre. oho. Fallou. Malick wax naa ñoom. ma ngay wax ak Zizi Fallou. ñoo ngi wax ak Zizi. waaye di nuyu waa senegal di nuyu waa àdduna. di nuyu diaspora bi Adama Siteu. mais Fallou damay nuyu kenn sama xarit suur borom AIBD. nuyu ko. Fallou Mansour borom ABD man. arbitre bi sifflé na lañ la jox oh arbitre sifflé na. ñaari mbër yaa ngay lewtoo. diggante Reug Reug. Reug Reug ak Bombardier. ak Bombardier. ndax dana yàgg Fallou. non combat bi dina dina laaj dina dina laaj tey. nañ yónni yàgg. dina laaj tey. yàgg bawul dara. dina yàgg dina laaj dal. ndeysaan. dina yàgg dina dina laaj lii. dimanche 24 décembre. oh fii ci arène nationale fii ci arène nationale Jamaïcain. jam production moo ñu fi waaye diggante Modou Lo. oh premier. Boy Niang. le premier cey le premier janvier waaye suba cey le 25 feet la. feet la. feet dem na mel. mais dew ma fenn. lamb ju neex moo fi am fii. feetuwuma maa nga sama kër. diggante ki nga xam ne mooy Sokh. Sokh. oh ak ka nga xam ne mooy Jackson. lamb ju gannaaw am suba bi. lamb ju gannaaw am suba. waaye cey le 31 décembre. ñoo ngay lewtoo. feet la ci biir feet yi tamit. Reug Reug moo ñëwoon ginnaaw. oh Fallou Ndiaye moo ñu foo moom it. Reug Reug moo ñëwoon ginnaaw. waaye diggante ki nga xam ne. Bombardier moo ñu wan kanam. mooy Boy Diop. ndeysaan ak ki nga xam ne mooy caatu ngewal lool la 30 yàlla waaye Reug Reug Bombardier ñoo ne ci digg géew bi. ayca nañu ñëw ci bis boobu combat. oho. Reug Reug Bombardier Leewtoo rek la ñu defagum dara xewagul songanteeguñu xeexaguñu. Reug Reug Bombardier. Reug Reug taxaw na déglu ko. te ñaari ñaari ñaari xale yoo loo xam si ni yàgg nañu bëri MMA. ñaar ñi international lañ. fa ay mbëru international lañu. addunaa leen xam. kon nañu wane fulla ak jom ndax dañuy compétir fépp. ndeysaan. Reug Reug. nuyu bépp yaay. waay di nuyu bépp yaay Fall. képp koo xam ne wax dëgg yàlla. yalla yaa ngi toog ak sa yaay. wala yaa ngi dimbali sa yaay yàlla la yàlla dimbali. amiin waay. maa ngi nuyu yaay yëpp. amiin Fall. di nuyu. waaye Fall di nuyu suñu caméraman. ndeysaan yirim yirim yirim a ngi nii. ndeysaan yirim kenn moom. kenn du moom. sama waay la sama xarit la. ndeysaan yërëm. léeg liggéey bi mooy toll foo xam ni. jot ngeen a laale. da ngay <laughs> ca yërëm waaye yërëm lu mu filmé wul baaxul. kenn du moom. leeral ay xale fa di leeral. ndeysaan ñoo ngi dégloon te ñaari ñaari mbër yaa waaye ba tey Fallou songante guñ xeexaguñ. Malick mi ngi naan leen bëre leen. ndeysaan. yaa ngi ci digg géew bi. ndeysaan Bombardier Ndeysaan Bombardier Reug Reug ba tey dara xewagul. Ndeysaan boo demee kër ko ñu ñu ngi ni tek ñu ngi ne teg. gaali dawuñu. waaye Reug Reug xale yam doon àndal ñëpp dem nañu. Bombardier tamit boo demee koñam. xale yam doon àndal ñëpp dem nañu. mu ngi ñu teg gaali dawul. ah. Ndeysaan ñaari mbëru tefes lañ. gaali waroon a daw nag daw na dem nañ fale suba kay jën dinaa ragal dina maare. jën dina am. oho. damay ragal lebu yi kaayee suba de fal ndax ñaari mbëru lebu la. la Diop bu ñu jàppantee rek ñu bëree. waaw bu ñu songee lamb feeñ. bu ñu jàppantee rek lamb ji day feeñ. Reug Reug Bombardier Mansour borom AIBD maa ngi lay nuyu. borom man VIP bi kenn du moom. waaye teel a 13 janvier Baba Jaxal Ibu Afia. du ma taay di leen ko wax yaaram aar la. ndeysaanam. la 30 la Diop. Fall waaw ASC Manko ñoo woote fële ca LG Mbao dina daggala ndeysaan dina daggala ba la 30 lay am ASC Manko ASC Manko di sunu di ASC yëpp bu mag bi ndeysaan di xale yu yaru di zone 10 yëpp di nuyu président bi jiili ndeysaan kenn du moom di nuyu Karbala Vie kenn du moom Assane Kaba Sidi Oumiye waaye sa yaa comédien bu mag bi Yaya moo woote tey. tey la léegi ci kanam. tey la léegi ci kanam Yaya. fee ca fee ca Fass Mbao. waaye di nuyu Pape Gueye di ma fàtte di ko wax. non Pape Gueye nit ku baax la. kenn du moom. nañu ko jàppale. na ñëpp mel ni moom. léegi ñaari mbër yi. ba tey mi ngi naan leen bëre leen. bu ñu laal xeexaguñ fàllu. foog ñamante nag tey seen la loxo laalanteegul. dinañ ñamante. dañ leen a fay pour ñu bëre nañ bare rëg-rëg Bombardier yi diggante mag ak xale la. Leewtoo Reug Reug moo soxla ndax mooy xale Bombardier moo soxla ndax mooy mag nañu daje. ñaar ñëpp a soxla. avertissement. avertissement verbal. avertissement verbal bi. faaw mu dal leen. Ah, waaw. ndeysaan. oho. Reug Reug Bombardier. arbitre soufflé waan na diggante Reug Reug ak bombar Bombardier waaw boo xoolee Reug Reug mu ngi bëgg a jeexal bëre bi waaye nax nax day songu nax bu demee lan la fay fekk Bombardier Reug Reug méb na léegi waaye demul moom Reug Reug ndeysaan Bombardier Reug Reug Reug Reug bu demee lan la fay fekk la Diop ah Bombardier nga baraaxee loxo bi taxaw de bu demee lan la fay fekk looloo jar a laaj. bu demee lan la fay fekk Reug Reug. dafa bëgg a songu. Bombardier du arrière de. waaye Reug Reug daawul bëree nii de tey daa déglu. ne woon naa la bu bëggee génn ci lamb foo mu jox ko cër ndax ci lim jugee. mag boo ko bëggee daan da koo koy jox cër. waaye cër bi bu yàggee mag bi da lay ñeme de. Sunjata Keita ñu koy félicité. di ko bu baax di encouragé ki mu doon bëreel. encouragé ki mu doon bëreel. muy Kalmu Ndour Grand Mbagnick. Grand Mbagnick di ko encouragé. bëreel la ndaanal la ki la daan war na laa daan. looloo la da war di bëre nag day gëj a bëre. waaye di féliciter amee neex. di encourager Bébé Diène xale la. loolay lamb. lamb gi noonu. ku bañ daanu toogal sa kër nga naan teg sa ataaya. ñi tee micro ñoo dul daanu waaye képp ku takk ngemu di nga daanu. maa la wax loolu. ndeysaan. si ba tey la gay nañu joxe avance ñaari mbëri. oho. amateur yee ko soxla. am na luy xeeñ la 31 juillet de si ta Balla Gaye. ah amateur yee ko soxla de. hey Bombardier Reug Reug songu na. Reug Reug songu na. songu na te Bombardier yëgu ko. songu na. Reug Reug daa jékki-jékki na curum dugg. daa jékki-jékki na curux. am na ngemb am na ngemb. xew. am na waaye Bombardier fa mu teg loxo ba baax na waaye bu ko tegee. bu ko tegee neex duñ ko plaqué. Reug Reug am na ngemb. hey eh, ma ngay gën a dugg. ma ngay dajale. lay la xëy la laa lay la xëy la laa doole daan na ko. doole xale la mu ndaw daan na mbaru siini mu Aliou Sidi mu ndaw oxo xale est-ce que yaakaar nga ni Bombardier amati na place ci lamb waaw non après ñu xoolal staff bi rek voilà parce que lamb lamb dama bëggal ko teral lamb daf ma bégal mënatuma naqar. teral na waaw. waaw mënatuma si am naqar. sant rek moo ma war. su ma amee sant su ma ñàkkee ma sant yàlla. Reug Reug est-ce que am na avenir ci lamb si am na avenir kay. am na avenir war na dégg fi koy dégg su ma doon ko fu ma dégg yàlla baax na. ñu